waaw tey loolu rek moo fi am. waaw ñu doon wax ni defeere woo convocation bi lan moo ko waral. non loolu ay wax la rek parce que benn yoon lañ ma joxoon convocation gisuma deuxième convocation bi te ñoom it ñoom it reconnaître nañ jox ñu ma deuxième convocation maa ngi doog a recevoir beneen convocation bu subaa incha allah dinaa ñëw wuyu si leen bu soobee yàlla. Mhm. ñu ngi doon wax tamit ci affaire député bi. Mhm. tey lettre de démission da nga kaa déposé wala. waaw parce que dañoo toll foo xamee ni euh, pour ma seetal sama dara adduna bépp xam ko sama dignité jaral na ma lu ne. ñu ngi si waxtaan bu ñu si tolloo dinaa ko def bu soobee yàlla. Mhm. te am naa yaakaar ni dinaa ko def euh, bu soobee yàlla waxtaan nañ ak El Hadj Diouf dina leen wax li si nekk lépp.